Euh, assalamu alaikum chers internautes et chers auditeurs euh, Dakar 24 tey ni nii euh, site d'information mom mo ñëw set ci ki nga xamante mom mo nek nekk euh, Babacar Mbaye ñu xamé ko aussi tam ci parti bi nga xamante mom mo nek euh, fi ci PDS parti démocratique sénégalais mom itam muy leader mouvement bi ñu tuddé sauver le Sénégal légui tey ni site bi da ñëw waxtaan ak mom ci walum actualité aussi muy actualité politique aussi fi ci Sénégal légui bàyyi mu bàyyi ki nga xamante mom moy gannu site d'information Dakar 24 mu joxé mu présenté wu d'abord serigne bi. na nga maa ngi sant bu baax euh, Fara di am mbégte lool ci dalal euh, seen site bi. Mhm. di profité ci occasion bi ngeen ñu offrir aussi di jaale suñu mbokk suñu mbokk tànn suñu xarit. Mhm. Cheikh Amar di jaale bi aussi toute la communauté mouride ak ñoom seqal réew yëpp. Mhm. waaye di également di profité ci occasion bi di leen sargal di leen delloo njukkal. amaana yàggu leen ci métier bi waaye yéen ngi ci bay seen waar ngeen gën a encouragé xam ne yéen seen ndam suñu mbégte kese lay jur.

Euh, may rafetlu franchement esprit de grandeur et de dépassement dont ces hommes politiques ont fait montre xam nga Ablaye Wade macha allah ko xool il aussi liguey bi mu liguey ci bu fekke nanguna ak ñun ni sa la te amul retraite kon mu ñu amul retraite ba tax mu ak ndaw ñi Sénégal sant ko rek def. waaye aussi de rendre un vibrant hommage aux autres leaders ku ci mel ni Idrissa Seck parce que dafa def preuve de d'esprit de dépassement ndax ku ne xam na digganteem ak PDS sax loolu mu ne ay temps waaye tey moom ak ku mel ni Malick ku mel ni Khalifa Sall ku mel ni Pape Diop ku mel ni ñoom ñëpp rek war nañu ni bu nation bi soxlaa ku nekk da nga war a fàtte sa bopp ndax ko fàtte sa bopp da sa réew tax sa réew ji la fàttali ko saasu ne moo tax ma am mbégte lool bi nga xamee ne gis nañu ni kan ñoom tey ñu leen yàgg dox parce que ñun ñu alliance pour sauver le Sénégal ñom ngi tuddu tay manko ngir wattu Sénégal japp na sax moy nga manko rek ngir wallu Sénégal kon melni ñun tay ñun suñu yuxu ba suñu mebeut ba ñom tay ñing koy motali waye japp na tamit ni war nañ ko mëna gëna yaatal ndax mbir mi tay ñaari coalition rek ñoo ci gëna fess ko la coalition bi nga xani moy manko taxaw Sénégal ma xaw ko mën a tuddee sax équipe nationale de patriotes maanaam ay doomi réew mi ñoo xam ñu bëgg seen réew gis ni ma ngay suux ma ci rafetlu aussi ku ci mel ni Serigne Mansour Sy Djamil taxaay bi mu ci am maanaam def na la maanaam daa def ndax man jàpp na ni sunu Serigne su baax si ak sunu magi buur yi fi nekkoon daa xeex ngir bañ natalu tubaab bi suñ fi nekkoon tey dinañ jógaat xeex parce que lépp lu ñu daa bañ rek Macky Sall mi ci réew mi dañoo xeex jàkkaarloo tubaab bi ngir xeex ngir nooteel bañ a am ci suñu réew mi ñoom Senghor ak ñu mel ni ñoom xeex aussi ngir Sénégal am indépendance mais tey on assiste dangereusement et à un rythme ki nu benn rythme bu jéggi dayoo à une marche vers le néocolonialisme kon jàpp naa tey mag ñi daa xeex contre le colonialisme bu njëkk kon tey dinañ xeex waaye ñooñu nag seeni sët ñoo fi nekk di xeex tey

waxuma sax le fait que ñu bëgg jël état bi transformé ko du sax xam ko tudé Nous xamni diko nous même euh, exécutif judiciaire législatif ku presque parlement d'accord assemblée nationale bi l'assemblée la plus nulle dans l'histoire politique du Sénégal l'indépendance ñëpp d'accord nañ aussi assemblée boo xam ni ña fay dem ba ñu nelawul ña ngay tàccu buñ tàccul ña ngay xuloo di saaga opposants yi c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal may gis ay député di exercer rek leur mission de député ay nit yoo xam ne sax bokkuñu assemblée taxaw ñu leen saaga ci biir assemblée bi def nañ ko ñoom El Hadj Diouf def nañ ko ñoom ay Aïda Mbodj ak ñoom Omar Sarr dont le seul tort était à l'époque de revendiquer ce qui leur revenait de boobu la gën a rafet sax mooy député yi nekk APR taxaw dàq seen mbokk APR yi ngeen eh fii ngeen di ñëw saagawu leen ñii ñun député yi ngeen saaga parce que bu ngeen leen bàyyi ki seen ca àll ba ngeen ñëw ba fi ñu liggéey di ñu leen saaga ñoom ñun ngeen toroxal nga xool te exécutif bi ñaaw ñaawteef yi fi am daanaka bi duñu sax ay ministre moo tax may ferme parenthèse boobu rek di mu ubben parenthèse ci rafetlu lool taxawaayu Thierno Alassane Sall wax dëgg yàlla li mu def ni war ni la Macky Sall waxoon le parti la patrie avant le parti moom moo def preuve de patrie avant le parti. kon nga jàpp ni euh, Thierno Alassane Sall euh, décision bi mu jël mooy. Euh, mais justement parce que c'est démission démission bi mu def ci gouvernement bi dafa défendre par par. patrie mais effectivement ce n'est plus un secret parce que xam Thierno Alassane Sall. Macky Sall moo ko fal. waaye balaa Macky Sall di ko fekkee dafa fekk mu jàng ci réew mi ñu fayal ci àll réew mi ñu fayal ko ci muy njàng. ay waajuram am ay jukko ñu def ci moom yàlla sunu borom mi nga xam ne kat moom mi dara teewul def na ba muy jàng de la sixième muy CI ba université am na ñoo xam ne amaan sax daqale woon jàng waaye yàlla sempi ko tey ba macha allah jox ko ay lijaasa jox ko wér ba muy liggéey am teraanga yàlla sempi ko ci ñooñu aussi ba def ko ci ministre jaar na ko ci loxo Macky damaa jàpp ni li war bépp jullit moo ko war moom la def muy leen balaa kii ma fal. muy kii nga xam ne ko jaarale ci moom saa su ne may jéem a nekk ci yoonu ki ki nga xam mooy joxe ndam ak teraanga muy suñu borom ma jéem a nekk ci moom ni mu ko santaanee réew mi nga xam toog seen alal ñoo ma daa jàngal ñu may fayal may jàng chaque fois n'importe quelle situation ma nekk war naa mën di fàttalikat réew mi laa war a jël teg ko sama kanam bala keneen di ñëw moom kon mel na ni bu fekkee dañ koy sant loo xam ne du njariñal réew mi mu gis ñoo xam ne kat proposé nañ lu ëppal réew mi njariñ bañ koo signé ba tax ñu koy bundu xatal mu démissionné des ak réew mi réew mi ñu ko delloo njukkal moo tax ma koy ñaan moom Thierno Alassane Sall mu xam ne ñu ñi xam ni mbir mi dafa mbiri parti mbir mi ñaari camp la le camp des patriotes ma wax la sànq maa ngi ko taxawu Sénégal c'est nationale des patriotes fii mooy place ndax ñee war nañu kat ñoom seen bopp lañ fi nekkal

dàq leen bi mu leen weeree saaga leen ba noppi ñuy xaar ay sanctions ci moom au contraire ñu gis ni dañ koo defal promotion mel ni kon Macky Sall tey moo leen sante sant il y a un prime à l'injure à l'insulte à l'insolence ma gisee Sidiki Kaba suy wax ak magistrat même ab jàngalekat sax primaire bu yore karaafam di dóor am na yenn comportement yenn langage yoo xam ne war na ko rus diggante ak ay élèves am esclave seen jaay jamono seen maîtres yi au moins amoon na benn respect bu ñu amal seen diggante ñoom mais si di Kaba quand il parle des magistrats ou aux magistrats vous avez l'impression que ni kii daal xanaa ay ñuy waxal duñu ay nit di leen agresser seen dignité bëgg leen soppi instrument de lutte daf ko benn arme contre les opposants waaye ñoom it seen biir am nañu ko nangu moo tax may rafetlu aussi taxawaay la magistrat qui ont préféré reste digne seen dignité gënal leen fouf ay prébendes ak avantage bañu taxawal CREI yi dama leen waxoon ni gis nga lii de man sax du du coup de répression de l'enrichissement illicite man dama ko jappé alak manam agence de liquidation des adversaires CREI ñu def ko expérience bi première expérience ñu def ko ci l'affaire Karim Wade opposants yu bari ak sax tay ñu bari ñëngatu togon pourtant on alertait à le disant que ni. lii de expérience bu ñuy def bu ñu essayé rek la waaye bu sottee seen kaw lañ jëm Karim Wade jàll Macky Sall jàpp tëj def ko un prisonnier politique dem ba mu neex mu génne ko def ko tey en otage politique dina ci ñëw xëy na ci biir waxtaan bi. Karim Wade jàll comme mos naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn mu gis ni réussir naa avec Karim Wade au moins tey jii exilé naa kenn ci samay potentiel adversaire naa song Khalifa sàll yaa ngi dégg tey Abdou Mbaye

kon tay réewu Sénégal moom moo lancé un appel à ses fils kon képp ko xamni ni tu choisi de de de de porter en bandoulière ton patriotisme ñewuy wuy ko rek japp naa ni loolu mooy sa waréf motax li wa coalition bi def ma rafetlu ko di ñaan aussi ku ci mel ci Alassane Sall ñëw bokku ci di ñaan aussi ñom Cheikh am ñoom Cheikh Tidiane Gadio ñu ñew ñamit bokku ci waye aussi di ñaan notre sœur Aïda Mbodj nga xam ni quoi qu'on puisse dire aussi dafa am lu mu tekk ci réew mi am lu liggéey ci réew mi digganteem ak Ablaye Wade lu coow li bari bari bari ku ne xam ni doomu Ablaye Wade la digganteem ak Karim Wade lu nit ñi mënti wax sëru Karim Wade la may ñaan également moom mu ñëw bokk ci camp bi quel que soit ñu mu joteel mu fàtte ko xam ni nañ dër suñu ba teg ko ci réew mi rek ba réew mi tax ñu muñ ku ñu tooñ waaye tamit di ñaan waa PDS di ñaan surtout président Ablaye Wade bi nga xamante ginaaw yalla yàlla li bu sottee mom la mu jël téléphone mba mu yone ndawam mba mu ay dem bañ tax man bir na ma ni dem bañ lu ko naqar ci aduna bu président wad waxee ak mom mu teg ko ci souf xam nga tuddu nga fi ki nga moy ay ay dem Mbodj ki ñuy naan euh, la lion du Baol je dirais donc euh, bir PDS mën wax ni activité fu mu tollu ni parce que da suspendre la mën wax quoi té du moom donc jàpp nañu ki nga xamantani aussi tam moy Farba Senghor ak euh, Pape Mbou euh, ki Pape Samba Mboup ñoom ñom ñoom ñoom ñaar dañ leen exclure ci bir PDS yow nan nga gisee exclusion bobu non wa xam nga lolu pour man c'est dépassé parce que le parti démocratique sénégalais est un parti comme tu l'as entendu comme ni ko tudé parti démocratique maanaam le comité directeur bi nga bokol moy instance suprême décider nañu ba paré ba dàq ñooñu. mais dama jàpp ne sunu suñu candidat muy Karim Wade du rek candidat PDS dafa nekk candidat de l'espoir am ay mouvement ak parti ak yeneen Sénégal yu bokkul PDS yu am ci moom yaakaar pour redresser réew mi nit war naa mën a mere PDS sax waaye jubóog moom am na ay mouvement yu nekkul PDS jàppale Karim Wade na yeneen parti ci kanam dañoo jàppale si ko kon jàpp naa ne aussi Farba Senghor ay dëmb ci war a des ci wetam jàppale ko te même Farba maa ngi parce que Farba. parti dafa nu muy doxee mën na amu bañ a ñoom gars yi jàpp ni ni muy doxal lay yàq parti gars yi jël ko teg ko nële ci wàllu ci biir parti bi waaye comme moom chaque fois mi ngi réclamé ni doomu Ablaye Wade la te doomu Ablaye Wade kër moo ko moo kër ñoo bokk bàyyi war nañu a jubóog nag ànd que dafa am ci war a dox que ce soit Ablaye Wade Karim parce que gis nga fi mi toll dootul affaire parti man jàpp naa ni bu ñu demee ba nga ay nit yi bokkoon ci benn bokk yaakaar daa ànd ak Macky Sall te ca fan yii di ñëw di ngeen gis ñu nekk APR ñu bàyyi ñëw fokk si intégrer l'équipe nationale des patriotes parce que réew me toll foofu bu réew mi toll foofu nag Ablaye Wade am ci conscience ba tax muy sol dàllam di wax ñu xam sax ñooñu ak presse ñu woon démb war nañ nag mën a kon suñu biir njaboot mu lante ndax réew mi fa toll du ay affaire parti faaw ku nekk fàtte sa bopp ñu jël réew mi rek teg suñu bët. appel bi ma laaj sànq ay d booj laaj ko Cheikh Tidiane Ngaye ko aussi Thierno Alassane Sall. maa koy lancé waale aussi Abdoulaye Baldé ndax waxuma sax moo xam ne ñii luñ ko mënti wax dañ koy nax bu seen pexe juban ci kaso lay nekk béy nag Youssou Ndour moo ko woon ni day ànd ak ay moromi béyam su ko bëgg su ko deful ànd ak cere mujjee mujjee mujjee cere comme ñu ngi jublu ci euh, législative yi euh, seen parti bi mooy euh, mooy coalition bi nga xamante ne PDS ci la bokk muy Manko Taxawu Sénégal gis nañu am na benn ñaari accord yi nga xamante ne tëddal nañ ko muy benn bi mooy premier accord bi mooy muy leader Euh, politique yi fa nekk ci bokk ci euh, coalition bi ñoom dañ ñoom ñëpp dañuy nekk tête ci seen département bu nekk léegi liñ ci seetlu mooy euh, fi nga xamante ne moom moo nekk Géejawaay Malick Gakou moom moo nekk tête de bi fii ci Géejawaay moom lañ investir yéen ñi bokk ak yéen ñi nekk PDS nan ngeen gisee kii boobu noonu waaw loolu dañ ci loolu dañ ko parce que d' abord mhm. Malick Wade ko Malick di mas ku ne xam na cër bu mu jox Abdoulaye Wade ku ne xam na ni aussi taxawaay bi nga xam ne am na ko wax dëgg yàlla bokk na ci ñi gën a dox ngir coalition Manko Taxawu Sénégal bi am kon bu fekkee dafa dëkk Géejawaay waa Géejawaay dañ ko war a sagal sargal ko delloo ko njukkal ci moom li nga xam ne liggéey na ko ci liggéey bu rafet boobu ba tous les patriotes mën a ànd ñëw à travers cette liste Manko Taxawu Sénégal avoir une majorité à l'Assemblée nationale, pour freiner les dérives de Macky Sall, mais également réparer toutes les injustices que Macky Sall a fait subir aux Sénégalais. Mouhamed Gakou da ko fii eh, daf ñoo def nañ ko yàlla yombal ñu a bi gens nga xam te ba ñu dëgg tout le monde n'est pas d'accord à l'animité pour que Malick soit la tête de liste de la coalition ici à Guédiawaye

wala kat mam ab jongante boobu suñu national wara sol mayo dem défendre couleur Sénégal tay équipe bi fi nek muy manko taxaw Sénégal te ma japp ko équipe national des patriotes lolou moy sénégal wara taxaw Sénégal manam sauver ce pays bala muy sour kon li waa way def nga xamni amna ci ñoo xam sen leader sax ñu ci coalition au niveau national mais ñam dañu décider de manière responsable ñëw bok ci coalition bi ici au niveau de way ma ngi ñaan ñep roy ñooñu maa ngi gërëm nag bu ñu ci tudd Géejawaay bu ci mel ni mouvement Géejawaay laa bokk ndax bu dëgg yàlla ñoom duñu sax ay politiciens mais gis nañu taxawaay bi ñu am ngir élargir la coalition de Manko taxaw Sénégal pour en faire la coalition victorieuse ginnaaw bi nga xam ne Géejawaay gis nañu ni Géejawaay mooy première victime régime Macky Sall principal Géejawaay mais dafa naa boo xam ci Macky amu ci dara ba dara booloo jeex au contraire def fi dara. waaye sax li fi nekkoon sax asi néew maa ngi koy yàq. lan la yàq fi. bi jógee bokkoon li mu bàyyi woon hôpital Dalal Jàmm ba Macky Sall falo ba tey hôpital bi mu ñu cee defar dara soo waxee bu tey ñu wax lii la bu soo waxee wax leen même ñoom sax les dirigeants coordonné wuñu ba d'accord ci benn lay bu ñu jox askan wi. bu lu koy waxee tey problème lal kii na la problème mu budget kii na la problème mu ay équipement. te pourtant dañu gis chaque fois ñu dépensé ay caaxaan ak i tapal loo xam ne moo ëpp fuuf l'hôpital bi soxla. beneen exemple fii ci Guédiawaye nga xam tey dañoo nekk encore une fois victime ci ñàkk a faale bi leen ñàkk a ñàkk a faale muy euh, faral le cimetière de Guédiawaye la première pierre ñu ngi ko posé woon en 2013 2013 ba 2017 ñu ngi xaar la seconde pierre xam nga dégg nga maam déedéet. Guédiawaye nga xam ne Guédiawaye est le seul département bu ma xam bokk Sénégal le seul département aussi paradoxal que cela puisse paraître Guédiawaye est le seul département de Sénégal à ne pas disposer de cimetière. au niveau de la ville son frère Aliou Sall ñëw na fii am ay projets yu pertinent yoo xam ne dañ ñu ngi rafetlu xalaat xalaatam la de waaye bu fekkoon Guédiawaye d'accord ci du mën a nekk Guédiawaye gépp d'accord ci à travers le conseil municipal mais ba tey Aliou Sall bu parce que taluñu saa ba njëkk ñii amuñu sax jotuwaay Guédiawaye qu'on en plus de la réponse que nous devons donner face à l'appel au secours lancé par le pays nous devons Guédiawaye le défi de montrer à Macky Sall comme ni a jox car carte faale wu ñu nangu na suñu carte jox ko ñu ne opposition bi. Euh, ci euh, accord bi nga ne manko fofu benen accord bi moy ku nekk tête de liste nationale nekk de liste nationale donné candidat pour 2019 yow nan nga gissé accord boobu non est-ce que lu bax la wala dit waaw lu bax la de parce que même bu nekkoon lu baxul sax passé nañ ko fi nek nekk japp jàpp naa lu bax la parce que réew tollu fi xam ne ko une fois ku nek da nga war a sa bob parce que gis nga frérot képp ko jël sa bob def ko ci ginnaaw intérêt askan bi autrement dit ku jël askan bi ak réew mi tak ko ci sa kanam. réew mi jël la ëllëg la ci kanamam waaye kër pour jël réew mi teg ko ci sa ginnaaw réew mi jël la tamit moom it teg la ci ginnaawam autrement di ñii fi nekk nga xam ne patriotisme moo leen jàpp ba ñu ñu d'accord sax fàtte seen bopp te xam ne réew mi di leen fàtte accord bu ñu jàpp baax na l'essentiel bala nga ñu naan nekk fa nañ fexe ba ki nga xam dañ koo dénkoon fal ko président mu soppi ko dekk boppam buur nañ ko ñu ne sunu buur

naan woy bu de defee cohabitation population bi da ngeen son ndax le pays sera instable sera ingouvernable c'est archi faux cette opposition là patriotique et responsable su majorité assemblée nationale aussi lepp lo xam njëriñ reum dinañ ci and ak Macky Sall kon liñ wax non ñom jéem napatal nappaatale xuppaate ak tiital askan bi ba bi ne comme bu opposition bi amé majorité à l'assemblée nationale day am ingouvernabilité day am instabilité nañ ragal

danañ xaaj dara ci tubaab yi de te Macky Sall ni muy doxalee ak tubaab yi moo sax gën a métti ci Sénégalais yi ni ñoom fajar bi daa doxalee ak ñun tubaab yi nañ daa doxalee ak ñun ni Macky Sall def jël suñu ressource yi jox tubaab yi moo gën a métti gën a ñaaw. al nañ ci euh, cadre euh, législatif bi nga xamante ne au moins euh, accord am na ñaari accord yu tëdd seetlu nañu am na ñi nga xamante ne ay leader la ñu ñu yor ay parti politique ku mel ni Idrissa Seck bu ñuy wax liste nationale moom daa bañ. du diriger déjà liste nationale parce que accord bi lu mu mon te moom bëgg na candidat bëgg na candidat pour 2019 léegi qui euh, euh, ki nga xamante ne moom moo Karim Wade pour 2019 mon loolu lay xaar parce que déjà législative yi li ñu ci dégg du candidat pour législative yi nga xamante ne moom la jublu le 30 juillet prochain yéen ñi nga xamante ne yéen ak moom est-ce que mën nañoo xaar Karim Wade mu ñëw jàppale leen ci xeex bi pour euh, législative yi. mais bi ma leen comme nga sa dina am ndox

day naa ci profité laas wala benn appel xam nga man honnêtement duma ma focaliser wu ci retour Karim Wade à une date x y z pour man xam lu solo fu mu mënti nekk na bokk ci xeexal réew mi te xam ne incha allah ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ak moom parti mu PDS. ak surtout ñi nga xam ne ñoo ay karimiste nag mu nekk ay jeunes ak ay femmes ñoo xam ñu ci ëpp ci ñoom sax mosu ñoo def politique ñenn ñi ña ne ko yeneen parti tey ñu bàyyi fa ñoo ànd moom. danañ ko taxaw ñoom ñëpp nekk ay Karim Wade fii ci Sénégal xam nga bu Karim bu fi nekkoon rek benn Karim mais dinañ gis ay milliers de Karim yu fi taxaw ku ci nekk am taxawaayu Karim Wade ba nit ñëpp mel ni Karim mi ngi seen biir kon ñëw géeg ñàkk fii ñëw du am lu muy wàññi au contraire ñun li ñu bëgg mooy réaliser avec lui notre ambition qui est de parachever l'œuvre de d'Ablaye Wade loolu nag objectif boobu nag dafa am étape bu ci am solo fi ñu toll nii muy donner à l'opposition patriotique une majorité à l'Assemblée nationale. fan passé seetlu nañ ñu waa euh, euh, Macky Sall ba mu demee ci njaalis euh, la mëna a wax kii di seen camarade Samuel Sarr lancé na fa ben appel amna ñi nga xamanté ne ci yeen bokkoon ci manko taxaw Sénégal muy ki di Souleymane Ndéné Ndiaye dem wuyu si ko yow ban jàngat ngay am ci réponse bobu nonu nga xamanté Souleymane répondre na ki di fréram xaritam aussi muy Macky Sall. <laughs> loolu de dama lay renvoyer rek Souleymane Daniel li mu daa wax ci def transhumance cest à moom atte na boppam donc loolu moom dama la ciy renvoyer rek quoi di wax ni nag aussi euh, am na ki droit xam nga li ñu li ñu wax rek mooy ñaawal li mu def ñaaw na nag pan sama sama gis-gis ñaaw na doublement parce que nga Macky Sall bu fekkoon ne dafa bàyyi euh, PDS dem ak ñoom élection gagné leen ci liggéey réew mi walaay walaay ko jàppale sax ak loolu li ñu mën taxit waa grawul mais Macky Sall daa bàyyi gañ pare jël réew mi def ko arme di toroxal waa PDS am naa xam dama jàpp ni képp ku doon dara ci ñoom ginnaaw yàlla waa da tax nga nekk ko su Macky Sall taxawee ci di ko toroxal di ko xoñoñal képp ku ànd ak Macky mel na ni yaa ngi koy jox doole jox ko paak ngir mu gën a toroxal Abdoulaye Wade man loolu déjà dañ na ci man ci ñaaw ñaawteef waaye dañ ci sant yàlla na parce que boo seetloo ni ngay wax jamono ji ni bàyyee ñu doole ëpp leen valeur ñoo nekkoon ci Macky ni ñu ànd ak tey ñu ngi du caxlu xaaj gisoo ay gars yi ne ko ci coalition Benno Bokk Yaakaar tey ñu ngi daw di ñëw di ànd ak ñun. nii kenn euh, kenn rek moo ñëwagum de muy Jamil moom moo ñëwagum. Jean Paul Diaz. Jean Paul est-ce que amati na dara fu mu toll. waaw non non mais ñi wax tamit amuñu dara ñoom itam ñi wax dara ak ñi wax au moins en terme de valeur xam na ma la jox exemple rek que ni ñoo ngi de su ma doon ñoom du ma dem parce que Macky Sall bu fekkoon dafa nekk président rek. Abdoulaye mo ndika wax ni jappelen Macky Sall. merci beaucoup uh, monsieur eh, Mbaye Garaf légui dama lay baye nga remercier internet comme ñu ngi ci uh, njaxtalu émission bi. wa ñu ngi remercier internet yépp jën jégalu encore une fois parce que wax dafa yombul amana wax yo xam sa xeyna amna ñu mu déranger baye ku ko déranger ñu ngi lay jégalu xam ne wax mooy yombul kon lu ci dëng rek ñu jégal ñu ko xam ni matadik nit moy yobbu nit mi def lu matul lu ci bax it dañ ko santale suñu borom lama wax dal su baax ak bu dëng yëpp nañu xool sama yéene mooy lan sama yéene mooy lan na ñëpp ànd incha allah rabi ñu assurel nous le peuple sénégalais ñu assurel la coalition Manko taxawu Sénégal mu tudd ci man équipe nationale des patriotes na Sénégal yi ànd ak ñoom assuré leen une large victoire au soir du 30 juillet. voilà chers internautes euh, ñu ngi leen di remercier fi ci fi nga xamante moy mooy Guédiawaye dañoo seet ki nga xamante moy Babacar Mbaye ngaraf di waxtaan ak mom ci walum politique ak euh, ci fi nga xamante moy législatif yi nga xamante mom lañu pour le 30 juillet prochain ñu ngi leen di remercier aussi di leen jox rendez-vous ba beneen euh, merci beaucoup et salam.